di ñaanal ñep jamm ak jéggal ak yërmande suñu borom tay nak ñu ñëwaat ak yeen ci suñu émission al munawir fasiyene waxtaan ak yeen ci ñu ñi la aram nga tak leen ak ñi dagan nga tak leen ak lu jëm ci walu fase ak idda mu jëm ci tuuti waxtaane ko euh, bu ñu ñëwé ci ñi la aram nga tak leen dañ sukkandiko ci ayé bi ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد صرف إن الله كان غفورا رحيما كن ñu أمن ne دنيا أرام li ñuy wax taxarimu mu abbat muy araam ba faw kooku moom mënatoo koo takk waaye am na koo xam ne taxarimu mu aqad lay doon araamu néggandiku la loolu danañ ci ñëw ci kanam bi ci njëkk mooy takk sa soxna baay kooku dafa xaraam sa baay direct bi la jur moo xam daawa ci soxnaam moo xam dafa faatu nga takk soxnaam loolu daganul moo tax alquran wax ne inna eh, eh, la ma qad salaf avant l'islam da amoon na waaye bi l'islam ñooy def ko daldi haramal tay nak innahu kana fahishata wa maqta wa saa sabila bakar bu rëy la jef ju ñaaw la merum yàlla mom ci waye nak sa baye bu ndaw mom bu xulle bo ci soxnaam bu la nexe man moko tak moy sa baye bi bok ak sa baye ndey ak baye mbam bok ak sa baye baye mbam bok ak sa baye ben yaay lu ci don koku mom bu sa yaay haram na la kooku ñepp xam nañ ko mu toloxan sa yaay bu ndaw xamne yaay euh euh direct la moy ko bokk ak sa yaay ben yaay mbam bokk ak sa yaay nday ak baay mbam bokk ak sa yaay kese koku mom dafa haram nga takko waye amna sa yaay yu indirect bo xamne dagan na man nga ko tak moy sa yaay bo xamne yaayam ak sa yaay yaay wala bayam ak sa ba ak sa ak sa bayu yaay luñ mëna bokk koku dagan na bu la nexé mën nga ko takk ndax ko saraku yaay la waaye saraku yaay indirect la dagan na euh, euh, sa bajjan direct dafa xaram mooy ku bokk ak sa mooy ku bokk sa baay benn baay baam bokk sa baay benn yaay kooku moom dafa xaraam waaye nag am na sa bajjanu indirect comme sa yaayu indirect bee mooy sa bajjanu indirect boo xam ne baayam ak sa baayu baay wala yaayam ak sa baayu yaay lu ñu euh, mën bokk kooku dagan na bu la neexee mën nga ko takk sarak bu jigen direct haram na la ay domam haram nañ la euh ko bokal sarak sa mag bu gor wala sa rak bu gor mono sey ak mom mono sey ak ay dom haram nañ la sa rak bu gor nak ba sa mag bu gor moy direct sa mag bu gor ba sa rak bu gor bo bokal baye ba ngeen bok yaay ba ngeen bok nday ak baye kooku haram na la ay domam haram nañ la waye sa mag bu gor wala sa rak bu jigen bo xamne indirect la manam seeni ñaari papa wala seeni ñaari yaay ñoo bokk ak mana mëna bokku koku man nga sey ak mom bu la neexee it mën ngaa takk doomam ah, ñaar ñu bokku ndey ak nyom seeni dom man nañu sey donte ñom ñaar ñooñu bokku ay sheikh lañu ah, ah, seeni dom man nañu sey des fois na nga ku naan loolu da salte mel na yow yalla xam yalla li salte ak li rafet yalla bind la jox la am xel xam li ñaaw li dagan li rafet mu rafetal limi rafetal Euh, sellal li muy sellal yow nga ñaan a ah, liikat kat dafa salte lii du ma ko def lii kat bëgguma ko kon day mel na yow yàlla ci boppam nga bëgg a xas wax ne lislaam daal xamut lu rafet yow yaa sama xel bokk moo gën a xam li rafet lislaam kon ñaar ñu bokk ndey ak baay seeni doom mën nañoo sëy donte ay seex lañu donte ñoom ñaar ñoo ñu bokk seen ñaari yaay donte ay seex lañu sa ndijaay bu xullee boo ci soxnaam boo la neexee nga takko ko moy sa nijaay bokk ak sa yaay yaay mbam bokk ak sa yaay baay mbam bokk ak sa yaay ndey ak baay mom bo ci soxnam bu la nexé man nga ko euh, takk aha man nga takk sax sa soxna sa nijaay sa nijaay man na wati soxnam nga takk ko ba pare dem ñaan sa nijaay domam nga xamna man nga ngaa sa soxna sa nijaay su wati ba pare takale domam waye nak dom ji soxna sim wati du ko jur waye bu ko soxna jurul rek man nga bolé sa soxna si nijaay su wati ba pare nak takkaale doomam loolu takkaale sa doomi nijaay loolu mën na nekk euh, exemple tamit ñu joxe ci exemple euh, sa baay baayam baayu baayam araam na la sa yaay sa baay sa yaay sa baay yaayam yaayu yaayam xaraam na la ba ca aadama sa yaay yaayam yaayu yaayam xaraam na la sa yaay baayam yaayu baayu baayam ba ca aadama xaraam na la exemple yonentu yàlla aadama bu dellu si waatoon ci jamono mënul sëy kenn ci euh, jigéen ñi ndax ñi fi nekk ñëpp ay setam lañ sayyidatuna Hawa bu dellu si waatoon ci jamono mënul sëy kenn ci góor ñi ndax ñi fi nekk ñëpp ay setam lañ aha ñu loolu tamit ñu bàyyi ko xel ko bokkal nàmp tamit waaye nag waxuma koo nàmpandool ci ay at koo xam ne yaayam daa nekk ne sa yaay nekk ne ngeen nàmpandoo ci ay waxuma ko ko bokkal nàmp ci benn ween kooku moom xaraam na la doomam xaraam na la jigéen bi la nàmpal xaraam na la ay doomam xaraam na la képp kum nampal tamit xaraam na la moo tax mu ne yaxrumu min arradaati ma yaxrumu min annasabi moo tax il faut yéen jigéen ñi ngeen def très attention def ngeen def très attention parce que koo jox sa doom bu ko nàmpalee moom bu màggee doom ji mënu ko takk képp ku jigéen jooju nampal mënu ko takk kon ki la nàmpal mënoo ko takk mënoo takk ay doomam loolu ñu bàyyi ko xel waxuma nag konkulum jëmm mu dem nàmp ci jigéen koku mom taxut may wax ndax namp ba namp di am jaring ci xalé moma tax di wax waye xalé bi tay bu demone ba am juróom ñaar sax dem namp ci jigéen loolu dara nekku ci aha boole ñaar ñu bokku nday ak bàyyi ci benn boom koku dafa euh ko lolu lañuy wax taxrimu mu ab mu aqat waaye mën nga leen dafa laa araam rek haram araamum ndégg-ndégg la ci bu la man mën na laa araam as diir waaye na laa dagal bo takkee ñaar bo gisee ñaar ñu bokk nday ak man nga ñew tak magji amak mom ay dom bo sa yo ko wacce rek rak ji dagan ah, na la man mako tak buma bu ma kenn nag loolu daa salte yàlla moo gën xam li rafet ak li set yépp mo la ko gëna xam jërul nga nan lol da salté man mako def waaye waye nak mënu leena boole ci benn bom ndax wa antajmu bainal ukhtayni illa ma qad saraf ah, mënu boole ñaar ñu bok ndey ak bay ci benn bom waye bo wacce kenn ki man na tak ka ci dess man nga sax tak rak mag ji am ay dom wacce ko dem tak ah, rak ji am ak moom ay doom waccaat ko delluwaat ci magge ya dara nekku ci man na nek donte ñom ñaar ñoo sax ay cheikh lañ nota yalla waxna illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima allahumma ighfir li warhamni aha doomi adopté dagan na man nga ko tak budé jigen, nga adopté jigen ba mag bu la nexé man nga ko tak budé gor bu la nexé yow jigen ya adopté gor ba mag bu la nexé nga sey ak mom doomi adopté tey bu dee góor la bu demoon ba màgg yor soxnaam wocc ko bu la neexee nga takk ko bu dee jigéen la tamit mu sëy ba tas bu la neexee nga jël ko takk ko kon doomi adopté du doom ji tax ñu naan dafa xaraam nga sëy ak moom kon sa doomi bopp moom dafa xaraam directe waaye doomi adopté nag mën nga mën nga mën ngaa sëy moom loolu moom histoire ñu ne woon na ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Zayd ibn Haritha yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko adopté woon te te euh, Zaydu bi may na ko doomu bàjjinam yonent jël na doomu bàjjenam may ko Zeyd doomu bàjjenam bi ñu wax Zeynab bintu Jaxs may ko may ko Zeyd ñu am problème Zeyd wàcc ko sunu borom digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ko takk coow li ne kur ndax arab yi dañoo aada woon euh, doom doomu adopté moom dañ ko daan jàppee comme doom bi suñu borom nammee jëlee aada jooju nag la daal di màbbuloo yonent bi sallallahu loolu yooyu nag mooy euh, sababu nuzulu ay yëpp mooy falamma qada Zeydu minha wa وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أصواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما سبب ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما سبب تمت أدعوهم لآبائهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إلى آخر آية Eh, kon doomi adopté lu nek ci bu màggee man nga ko tak bu dee góor la man nga ko fuma nga sey ak mom wàcce sana man nga ko tak sa soxna eh, doom haram na la sa doom bu xasse ba tak soxna am soos même bu ko wàccee to ko tak waye nak man nga len man nga gis yaay ak doom nga ñew tak yaay ji jël doom ji may ko sa doom wala nga tak doom ji jël yaay ja may ko sa doom ñaar yëpp man na rek waye ko ci xassa tak na sa doom sa doom kum ci xassa tak takk na la ñu dal koy bàyyi xel bu baax a baax ah, man mën ngaa gis ah, yaay ak doom nga dal di ñëw takk yaay yi dal di geesu gis doom ji mu rafet nga dal di wàcc yaay yi dem ci doom ji loolu mën naa nekk waaye nag ci kaw. ba nga takkee yaay yi jotoo seq ak mom dara jotu leen sey amu leen rapport sexuel waye bu ngeen xasse ba am rapport sexuel moom to ko ci naan da ngay tak waye bo yeme ci tak ga kesse jotoo am ak yaay ben rapport sexuel leen dara nga gis dom ji mu rafet am nga droit wàcc yaay yi dem sey ak dom ji waye nak tay lol moy contraire bi man nga gis dom nga ñew tak dom ji dom ji mom pas passup sey bi bu xasse ba am mo xam am nga mom rapport sexuel mo xam amu leen rapport sexuel même wacce dom ñu ji to dem naan da ngay tak yaay ji mom دفلي دالدي حرام موتاهم ويغني والمسو للأمي تفيت الابنة والحقد للبنت تفيت الأمة كون دال سسوحنا يايام حرام نرى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجيركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نحن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جنا عليكم تميت من نايا فك ياي أكدوم نيو نجالو أك ياي جي بفري دم تكدوم جي لول من نا ديك ولا نيو فك ياي أكدوم dem njaaloo ak doom ji wàññeeku ñëw takk doom ji ndax laa yaxrumu bi zina xalaalun njaaloo munta araamal lu dagan man ngaa njaaloog yaay yi wàcc fa yaay ji ñëw takk doom ji wala ngi njaaloog doom ñëw wàcc fa doom ji ñëw takk yaay ji loolu dara nekk ci laa yaxrumu bi zina xalaalun jigéen bu la mag ndax takk ko dara nekk ci de ndax dara nekk na ci déedéet boo ko bëggee bu la ko aada tere bu la ko bul am benn complexe euh, bu la neexee takkal wala ko sëy ba tas dara nekku ci wala ko am ay doom dara nekku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam première soxnaam mooy Khadija te Khadija magee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 15 ans kon problème kii moo mag loolu waru ko am Khadija sëyoon na ñaari yoon amoon na ñaari doom kon sëy jigéen bu sëy ba tas wala jigéen bu am ay doom loolu dara nekku ci bu la ci kenn xas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon nag te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy suñu royukaay moom la ñu yàlla royloo tamit ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana daganul ci ab julit tamit muy sëy ku gëmul yàlla moo xam julit bu góor la wala jullit bu jigéen ku gëmul yàlla mooy koy xam ne ate la xum ate lañ koy xumoo mooy ku gëmul dara wala am mushrik mooy koo xam ne day bokkaale moo xam gëm na dara moo xam jant bi lay jaam wala sawara wala ay bant wala lu ñuy wala lu ni gëmna dara waye yoy lay jàmm moy mushrik moy kuy bokal yàlla ak ko xamne gëmul dara ñom ñaar ñom julit bu góor deganul musse musse ak mu tak leen julit bu jigen deganul mu tak leen mota alquran wax ne wala hul mushrikaati ata yuminna ata yuminna wala amatu muminatun xayru min mushrikatin wala a'jabatkum wala hul mushrikiina ata yuminu wala abdu muminun xayru min mushrikin wala ajabakum ulaika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati walmaxfirati bi isnihi ila axiri mu ne ñii ñoom sëy sëy ak ñoom musiba la sëy ak am musrik moo ko mooy koo xam ne day bokkaal yàlla wala ko gëmul dara nga ñëw di sëy ak ñoom di leen takk musiba la nee takk ab jaam bu jigéen sax moo ko gën yow jullit bu jigéen mi ngay dem di sëy ak ku gëmul yàlla wala kuy bokkaale yàlla nee na nga dem sëy ak ab bu ab jaam bu góor ci lislaam sax moom moo ko ga ndax sëy ak ñii ñoom dalay yóbbu sax waa ulaakee doon nee la naar te yàlla dalay wamat yóbbu la te yàlla moom fi mu leen di oo di leen yóbbu mooy aljana aha kon loolu it ñu daal di koy bàyyi xel bu baax te fii ci senegal moom am na ñoo xam ne ku leen ñaan seen doom doonal yéefar doonal catholique seen yoon nekku ci yoral yow daal yoral xaalis rek bu fekkee yow ñeeñoo nga wala géwal nga ñëw ñaan géer bi doomam mu doonte ab julit la euh, euh, doonte ab julit nga bu sàmm sa diine ñoom seen yoon nekku ci comme ñeeñoo nga géwél nga rek pare nañ ci te tubaab bu ñëw ñu may ko doomam xooluñu ndax tubaab bi ñeeño la wala géwal la wala géer la ناي خولي نتا من دخ عبد الله موم دال ناي توباب رك تايور خالص تا الاسلام خمول غير خمول غير عبد الله خم تا صلى الله عليه وسلم نينا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فينة وفساد في الارض نيت بو نيوي تي يين خول دي نيان سي سخنا خول لين جيكوم bu ah, len doye ngeen dal koy may soxna bu len ko defu fitna lay don ak yakute gu tasaro ci kaw suuf legi nak da xool yow li la neex nga def ko waaye li neex yàlla moom doo ko def ndax sa am ñeeño day ñëw di ñaan sa doom wala ab géwal wala ab géer nga ne ko du la ko may ndax bokkuñu xeet ci gën a ñàkk fayda sax mooy ki taxaw naan man géer laa wala géeñ wala ñeeño laa parce que loolu amul ci lislaam ñun ñëpp te it nit lañ te ci aadama lañ jógee léegi nag bu nit ki ñëwee ñaan la sa doom nga bañ yow daal farata ji moom doo ko def waaye nag bu ñëwee ambal ko moom di nga ngénte mom dal li naqar yàlla man nakoy def wala yow mom lila neex du def mukk lol nak jadul te it rafetul ñu xamna tamit ab julit bu jigen manul sëy ak ab catholique ab julit bu jigen manul sëy catholique lol nak lu bare bare la ci Europe da naka julit yu jigen yep bo xolé ñi ngi sëy ak catholique yi fofu wala juif yi te lol nak kep ku ko def da nga xamne seyo da ngay njaalo rek ta ka nga nekkal am nekkal la te doom jo ci am doomi njaalo la kon ab julit bu jigen manul sëy ak ci wa ahlul kitab moy ab catholique wala ab wala ab juif ndax boo xoolee aay bi al yawma uxilla lakum altayibat wa taamu alladina utul kitaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum walmuxsanaatu min almuminaati walmuxsanaatu min alladina utul kitab من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافين ولا متخذي أخدان kooku moom moo tax suñu borom dafa wax ne daganal lañ leen ñam yu teey yu dagan yi bépp ñam bu teey te dagan te neex rek mën nga koo lekk wa ahlul kitab muy catalogue buñu rendé man nga buñu rendé ci na len ko sen diiné digalé man nga ko lek ah yow tamit bo rendé ñom man nañ ko lek mu né jigéeni musulman yi nga xamné ne sangé sangewu téye sen bop duñ ay ko duñ ay ko duñ ay fokat koku man nga leena tak takk jigéen ñi nga xamné ne sangé sangewu ci ahlul kitab nga xamné ay catalogue lañ way duñ ay ko duñ ay fokat duñ ay ko koku man nga leena tak bu ngeen joxé ci cenu cenu kon lolu liñ ci jangata bari na ndax ab njaalookat lislaam dafay bañ ku sàmm di ko takk ndax azzaani laa yankixu illaa laa yankixu illaa zaaniyatan aw mushrikatan am njaalookat bu góor moom njaalookat bu jigéen rek la war a sëyal ak wala am mushrik loolu la alxuraan wax moo zaaneetu laa yankixuhaa illaa zaanin aw mushrik am njaalookat bu jigéen it bu góor rek moo ko war a denc wala ab bokkaalekat ndax lan alxabitaatu lil xabitiina wal xabituuna lil xabisaat ñu bon ñeeg ñu bon ñi rek a ànd rek a war a ànd tayit wa tayyibatu lit tayyibina wa tayiba lit tayyibat ñu bax ñak ñu bax ñi rek ñom ñoy and te bo xolé ay bi innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat ñi wara and ñep suñu borom boole na len fofu non ba ay ba jeex ñu bayyi xel ci ne tamit sa soxna buy gis rayagal haram na nga sey ak mom li commencé ci jumba xam ba ci bëtu oomam amo droit laal ko lo bëgg bëgg bëgg plaisir sa soxna buy gis rayagal mom fofu bako l'islam tere nako aha ñaar ñu bokk nday ak baay mën ngaa ñëw takk mag ji sa doom takk rakk ji loolu dara nekku ci ñaar ñoo xam ne tamit seen ñaari yaay ñoo bokk ak lu ñu mën a bokk wala seen ñaari baay ñoo bokk ak lu ñu mën a bokk mën nga leen a boole ci même benn buum waaye ñi nga mënta boole kay mooy ñaar ñu bokk ndey ak baay direct hmm. loolu it ñu mën ko bàyyi ko xel bu ñu demee ci téereb Sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul nee na takk soxna li koy taxaweer mooy pas-pas buy wanee ne may nañu ko diw diw may nañ ko diw diw nangu na may ga te jigéen ja bañ a nekk ci idda te góor ga tamit bañ a yor lu ëpp ñeenti soxna ndax sëriñ soxna bu nee na tere nañu ku yor lu ëpp ñeenti soxna nee na ku yor lu ëpp ñeenti soxna yoon ray na ko rayub gëtën te bu ko tuubul ba dee sawara lu jëm jigéen buy idda woo idda ñaari façon la ku borom këram faatu ak ku ñu fase ku borom këram faatu 4 mois 10 jour la bu dee ku ñu fase budee kuy gis regal la trois regal la budee xale bu gisagul regal mbaa mag mu gisatul regal trois mois la والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا ي... انا بنن ايه تمد بو يخني ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحدن اولاة الاحمال ولا لم ولا لم يحدن دال نو اولاة الاحمال اجلهن اي يدهن حملهن كون كو خامني دا فا امو تمد saa yu gisee saa yu amee doom tamit iddaam jeex na waaye itam foofu tamit dinaa fi indi ay leeral ñu def ci attention bu baax ndax dina ñëw dina gën a leer ci kanam jigéen boo ko takkee te jotoo sëy ak moom nga fase ko kon kooku du du iddawu yaa ayyuha allazina amanu ida nakaxtumul muminati tumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fa ma lakum alayhinna min iddatin taxtadunaha kooku moom fa matexuhunna sarahan jamilan rek ngeen daal di dem ci jàmm jigéen bu amul jëkkër daal di njaaloo jigéen bu mësul am jëkkër wala bu amul jëkkër daal di njaaloo balaa ñu koy maye dañ koy bàyyi ba mu def li ñuy wax istibra mooy laablu mooy setlu ñu door ko mën a maye waaye mënoo am ak góor rapport sexuel tey suba ñu may la ko wala nga am ak góor rapport sexuel semaine bi semaine bi topp ñu may la ko loolu wala nga nekk safar di tëdd moom ba saa yu la neexee euh, ñu xëy rek may la ko loolu mënul nekk sëy boobu bu ñu ko takkee sëy boobu daganul boo njaaloowee ak koo mën a njaalool balaa ñu lay mën a mayee da nga war a laablu ba pare bu ñu la mayee sëy boobu daganul laablu nag comme ni nga ko waxoon ci ginnaaw bu dee kuy gis regal la dem njaaloo balaa ñu koy mën a mayee bàyyi ko mu toog trois régal ñu soog ko mën a mayee bu dee ku gisagul régal ndax xale la mbaa mag mu gisatul régal kooku na toog trois mois ñu soog koo mën a mayee loolu leer na mu des nag bu ca ambee bu ca ëmbee nag euh, bu amee doom mën nañu koo maye euh, bu fekkente ne da ca ëmb amee doom mën nañu koo maye aha ñu bàyyi xel tamit ne jigéen bu mësul am jëkkër bu njaaloo dañ ko war a dóor téeméer yar góor bu mësul am soxna bu njaaloo dañ ko war a dóor téeméer yar azzaaniyatu wazzaani fajlidu kulla waahidin minhuma mi'ata jalda góor ak jigéen tamit ku ci masa marié moo xam yaa ngi ci biir néegu sëy wala saytu lislaam atteem ci yow mooy dañu laa war a rey tamit ku tuumaal nit njaaloo te andiwoo ay seede mooy ñeenti seede kooku dañ laa war a dóor quatre-vingts yar quatre-vingts yar moo xam nag da nga jël ay image jàmbur publier ko ci internet bi moo xam da nga toog di yàq deram boo ko mën a boo andiwul ay preuve moom kooku lislaam nee na dañ laa war a dóor quatre-vingts yar wala dina yar moo nana moxsanatil wala dina yar moo nana ثم ثم لم ياتوا bi arbaati shuhada kooku moom fajliduhum tamaanina jalda te wala taqabalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun nee na kooku moom dootul matati sax seede lu dul ne nag illa alladina taabu min ba'di dalik loolu xanaa dafa tuub ba loolu jàllee moo tax kon di jël vidéo yi jàmbur yi di dugal ci internet bi di yàq deri jàmbur yi loolu nañu koy moytu ndax képp ku ko def da nga xas ab julit da nga yàq deru nit te ku def yàq deru nit ci yu mel noonu l'islam dafay digal nañ la dóor 80 yar Euh, ki nga xamne ne dañ ko maye dañ ko may jëkër avant muy sey ak jëkër ja mu daal di njaaloo kooku kenn du ko ray dañu koy euh ndax euh, sangiwul ndax sangiwul dafa bok ci ay sartam nga sey ak sa borom kër sey gu wër nga sax ak mom am ak mom rapport sexuel kon su koku euh dañ koy euh, dañ koy door rek waye kenn du ko ki jigen boko ko ci idda sey bobu dañ ko wara tass bu idda ja jeexee man nañ koo takkaat waaye boo ko takkee ci biir idda sëyeg moom ci biir idda ja kooku moom araam na la mu faw taxrim mu abat la mënatu ko takk ci àddina ah, boo ko takkee ci idda nga bàyyi ba idda ja nga daal seq ak moom dara te dëgg moom ndax lan sukkandikoo ca takk ga ko takkoon ci idda ja kooku araam na la ba faw mënatoo sëyeg moom jigéen bi nga takk ci kaw ëmb bu dee yaa ko ëmbal ñi may la ko ci kaw ëmb bi kooku dañ naan dañuy tas sëy bi ne la bàyyil ba mu am doom ñi soog la koo mën a may bu fekkente ne nag ëmbaloo ko foofu la problème bi nekk bu fekkee keneen moo ko ambal yow nga ñëw takk ko ci kaw ëmb moo xam xam nga ko moo xam xamoo ko moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko ñi la ko may moo xam xam nañ ne da ëmb wala xamuñu ko waaye bu ñu xasee ba fas sëy ba ba nga seq ndaw sa dara ndaw sa araam na la ba faw mënatoo koo takk ci àddina même bu amoon doom mënatoo koo takk Euh, ndox ma fa nekk defoo ko fa waaye bu fekkoon yow yaa ko fa def moom kooku bu amee doom mën nañ la ko mayaat waaye comme yow ëmbaloo ko dañ ko ëmbale feneen ñëw may la ko bu la ko mayee ca kaw may boobu nga seq ak moom dara rek moom araam na la ba faaw kon bu ñu la ko mayee dañoo a bi ba mu am doom ñu soog la ko mën a may waaye boo ci ba seq ak moom rek araam na la ba faaw aha euh, moo xam kon tamit loolu ñu ba ñu koy bàyyi xel. Euh, bu dee loolu moom ci atti boobu bu dee ci mazhabu imam Malik boo amee soxna mu njaaloo bu dee góor euh, euh, bu boo amee soxna mu njaaloo bu fekkee bëggoo ko wàcc da nga koy bàyyi moo def istibra fekkee dafa am beneen góor dañ koo këf wala dafa réer wala dañ ko agressé woon téye ko wala dañ wala wala wala dañoo tëdd ak moom wala dafa dem njaaloo ji kooku bul seq ak moom dara bu fekkee da koo bëgg a téye da nga koy bàyyi mu laab lu def istibra comme ni ma ko waxoon ci ginnaaw bu dee moom kuy gis règle la trois règle bu dee ku ko gisagul mbaa ku ko gisatul trois mois la euh, bul sax ak moom dara euh, ba istibraawam di jeex bu dee dafa ëmb tamit bul sax moom dara li feek amul doom ba dereti wasinam jeex nga doog a mën a moom mu des nag tey sa soxna bu njaaloowee nga fase ko bu dee dafa ëmb euh, bu amee doom day toogaat trois règle xam nga sa soxna bu fekkente ne da nga koo fase te fekk dafa ëmb te yow yaa ko ëmbal kooku moom bu amee doom iddaam jeex na ki njaaloo te fekk masoon na am jëkkër tamit dañ ko war a rey góor bi euh, njaaloo am jabar euh, mbaa mas naa am jabar dañ ko war a rey kon ku ci masul am nag dañ ko war a door téeméer kon bu àtteb lislaam dalee seen kaw euh, sa soxna njaaloo même bu ñu ko reyul yow jàppale ne ab néew nga yor sa kërit bu njaaloowee te reyuñu ko attib lislaam dalul ci kawam ndax attiwuñu attib lislaam ah jàppal ne sa soxna euh, jàppal sa borom kër euh, ab néew la buy dox euh, na ngeen dem tuubi te jégulu yàlla wallahu taala alam sa soxna boo ko fasee li gën mooy nga téye ko sa biir kër ba idam jeex loolu alquran di wax ne laa na min buyutihinna wala yaxrujna illa ayatin bi faxshatin mubayna ndax la ci yàlla jublu moom moo ko xam ndax laa tadri la yoxdisu ba'da dalika amra booy wàcc sa soxna tamit nga bàyyi ko ba mu nekk ci ak laab mu gis régal ba set nga baña a euh, sëy moom door ko fase sa soxna tamit boo ko fasee te fekk mu ëmb yaa ko war a yaa ko war a dundal loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, boo mandee nga daal di ñëw wax sa soxna ne ko fase naa la sëy boobu tas na boo meree nga wax sa soxna ne ko fase naa la sëy tas na waaye bu ñu la forcé pour nga fase sa soxna sëy boobu moom tasul boo waxee sa soxna ne ko bu sama téléphone sonné fase naa la buy téléphone bi sonné rek sëy bi tas na boo waxoon sa soxna ne ko tey bu ma naanee ndox sëy bi tas na booy naan ndox sëy boobu tas na kon fase soxna sa soxna ci loo ko aj rek ca loola lay daal di aju loolu ñu bàyyi ko bu baax kon daal euh, fase sa soxna ci loo rek ci loolu lay daal di euh, fase nag sa soxna euh, kon nag fase sa soxna tamit ci benn baat wala benn yoon te jublu ci ñetti yoon kon dootoo ko mën a takkaat xanaa keneen takk ko euh, ba fase ko nga door ko mën a takkaat fasem summeeku mooy sa soxna ne la doyal naa ci sëy bi nga ne ko delloo ma la ma la joxoon wala nga ne ko la ma la joxoon delloo ma genn wal ga bu la ko joxee rek sëy ba tas na sama soxna mënul am doom sama soxna mënul am doom nga ne dama koy fase sama jëkkër mënul am doom nga ne damay tas sëy bi loolu jëf ju ñaaw te rafetul ndax doom kenn du ko maye kenn du ko may boppam yàlla koy maye subhanahu wa taala lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yasha nee na yahabu li man yachau inatha mooy may ku ko neex ay doom yu jigéen kese wa yahabu li man yachau dukuur mooy may ku ko neex ay doom yu góor kese aw yuzawijuhum dukuraanan wa inatha mooy xool ku ko neex mu mélanger la ay doom yu góor ak jigéen waaye yaj'alu man yashaa'u aqiima mooy xool ku ko neex mu def la nga nekk ab jaasir mooy ku am ku munta am doom ndax innahu alimun qadir kon doom bokkul woon ci contrat sëy bi am na ku ma sa ñëw sëñ Tuubaa ne ko sama soxna daa mënul am doom ma bëggoon nga ñaanal ma sëñ Tuubaa ne ko ab sëy bañ koy wax am doom taxul ñàkk ba ñoom yàlla moo taxoon ñuy wax ak jigéen bu tollee ci say mbaa góor bu tollee ci am soxna bu leen óore na bu ñu takkul soxna du ñu euh, duñu duñu duñu ñu njaaloo bu leen neexee bañ takk kon am doom taxutoon ñàkk bañ a mooy yàlla moo taxoon ñuy wax euh, sa wujj bi am doom mayu ko boppam yàlla ko ko may euh, kon ku la xas ci ñàkk am doom xasula yàlla la xas ndax yàlla moo koy maye ki ko am mayu ko boppam ki xañit xañu boppam yàlla ko xañ kon seyel sa sëy te muñ te sant yàlla ndax xamoo lu tax yàlla xañ lako ndax lamu jexela ay moy innahu alimun qadir kon la tax yàlla xañ lako mom moko xam bul diglu goro wala wujju bi lay xas ci sa ñaka amuk dom ndax Sénégal mom nga sëy te amo dom bokoy def rek ñu xas la ko te fàtte nañ dogalub sunu borom subhanahu wa taala te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na juroom ñenti soxna te ñaar rek la ci amulon dom muy khadija ak Mariyatul Xibtiya waaw même Aïcha li ko yonent bi sallallahu bugg wasallam di bëgg bëgg bëgg amut moom doom am na ay ngant nag yoo xam ne mënees na cee euh, wàcci soxna wala mënees na cee tasa lu mel ne xuruju ghaitin min euh, al inda al mel ne bu fekkente ne nit ki booy sëy moom day day day dem douche moo xam ci góor gi wala ko jigéen gi su boobaa bu la neexee bi mën nañ koo tas koo amee rab muy daanu wala mu amee gaana wala siti yu mel noonu tamit bu la neexee mën nga ci mën nga ci divorcer li ñuy wax baxrul faraj tamit mën na nekk nga xam ne mooy sexe boo xam ne dafay am xet loolu it bu la neexee mën nga ci tasub sëy waaye yëpp am na néggandiku nag pour bàyyi ko mu dem faju li ñuy wax ixtilaatu maslakil bawli wa dakar mooy fii jigéen bi di sawe ak fi muy amee doom bu fekkee dafa dafa xëttaloo loolu it mën nañ cee tasa sëy waaye yooyu yëpp dafay fekk nit ki ñu bàyyi la mu dem faju euh, ak li ñuy wax lax laxmun yabrusu fi qubuliha euh, xam naa genre euh, yu mel ne ay soccet la wala yu mel bu dee góor bu fekkee koo xam ne dañoo dagg sexam bu la jigéen nga mën ngaa mën ngaa tas bu dee koo xam ne dañuy wax unna mooy ku tuuti wala ku sakkaram dul jug wala yu mel noonu kooku moom jigéen gi mën na koo muñal tamit mu daal di faju bu ko defee mu appal ko ak yu ni mel bu dee ku mel ne nguuni ŋaana tamit yu mel noonu mooy koo xam ne ñaari sexe la amee fase nag comme ne ko sëriñ Souhaïbou Mbacké jàngale ci téere boobu di Qurratul Ayni nee na mooy wacc sa soxna waaye la ca gën mooy nga wàcc ko benn yoon te bañ caa jublu ñett te mu nekk ci ak laab boo xam ne sa yoo ca ak moom su boobaa loolu mooy fasam sunna saa yoo ko bëggee jëlaat di nga ko man te du aajoo nga koy takkaat waaye nag bo xolé ba idée ji jeex nak boko bëggé jëlat da nga koy fasaat joxewaat cyan kuy fase nak euh, na nga fase lu yam ngir boo euh, bëggé jëlat sa soxna mu yomb la waye bo fasé mer ba fase ñett yoon wala ben yoon te jublu ci ñett yoon mënu même bu iddaam jeexee mënoo ko jëlat koku doo ko mëna jëlat ludul lu ba tas te sey bobu du doon complot euh, euh jigen buy gis régal kenn waru fase nee lol loolu def yon dana ko forcé mu jilat soxnam ta balako ko sañ a day xaar ba mu gis reglam ba mu seyat ak mom ba ba mu set mu soko dora mana fasé euh fasé fase euh, fase fase fase fase mu yon def niki gur gur dafa def lu jaaduwul jigéen euh, euh, ba ba ba yon fase ko sey bobu tasna tas na même saga yit man nañ ci tas ab sey lolit ñu bayiko xel bu ki giñoo ak soxnaam bu nangoo jëlaat soxnaam euh, mën na nekk bu idda ja jeexul ki ñàkkoon lu mu dundee dundale soxnaam bu ko amee mën naa jëlaat soxnaam bu iddaam jeexul nee na it idda yi ko faatu 4 mois di jours la idda yi ko ñu fase 3 la bu fekkee istibra waru leen koy idda wu nag tere nañu tere nañu ko mu génn fu sori rawatina fanaan fu mu dëkkul idda yi ko faatu nag tere nañ ko yooyu yëpp ba pare dolli ca du takk dara ci xeeti takkaay wala wurus wala mu sol yére yu rafet waye wala mu laal parfum warul di xeeñoo diw gu neex man na xeeñoo diw gu nakari ngir kawaram baña rus. ko xamne it borom kërëm dafa dem bayiko ko te joxoko ko lu mu dundé te man nako te te man nako xana dafa bañ rek kon sañ dem ci kilifam ca kilifaam wala kilifa goor ga mu kon bu bu bu borom kër ga ñëwaaté nak man nako jëlat bu fekkul jigen ja am benen borom kër ci kaw mu neex jigen ja ko xamne borom kërëm dafa sànku te xamatuñ ci moom dara wala sax xam nañu fa mu nekk waaye dikkul yónneewul moo xam da koo amul wala dafa am gàllankoor wala sax xamatuñ ndax mi ngi dund wala déet bu fi bàyyee lu mu dundale ndaw si loo xam bu fa bu fa bàyyee ab dund wala loo xam ne mën nañ koo jaay pour dundal ci ndaw si bu jigéen ja ragalul ci boppam jaaloo kon mën na ko muñal ñeenti at bu fekkee ci réew yi la nekk bu fa nekkul um, um, bu bu fekkee ci réew yi jullit la nekk Euh, bu ko defee euh, jigéen gi day xool euh, bu fa nekkul nag day xool lam mën a muñ rek waaye nag yooyu yëpp ci kaw góor gi bàyyi fi lu mu dundalee jigéen ji ak fum ko dëkkal te jigéen ja ragul ci boppam njaalo diir boobu nag mën na ko xaar bu lu ko neex ku boroom këram faatu te yëgu ko woon saa yu koy yëgee rek day jàpp idda bu nekkee ba mu koy yëg lu bari ca idda ja jàll na kon la ca des lay jàpp bu fekkee ba mu koy yëg fekk na lu bari Euh, fekk na la mu waroon a jàpp jàpp idda jeex na kon su boobaa du iddawu jigéen bu am bu tamit ñu bàyyi xel ci ne jigéen bu amoon ay milliards te euh, terewul yow góor gi yow yaa ko war a dundal ndax wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kon ñu dal di yàmbale foofu suñu bind tay bi xam naa ci yeneen bind dina ñëw gën yaatal ci wàllu sëy ak yu ni mel ñi nuyu waa Dakar ak yëpp di yital ci nuyo bi sëriñ mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ak sëriñ Sele Mbay moom mi nga xam ne lépp luñ fi am rek ci eh, ak yaatoom lañ ko amee di gërëm jullit yëpp ak eh,